allahu bala ñuy àgg ci màggal bi marché bi dana delluwaat à la normale waxuma nag dana prix yi dana yomb li may wax dama koy wax mu leer marché bi dana delluwaat normal ndax na depuis démb rek marché bi commencé na dellu normal ndax tey jii am na cargaison bu nekk poor bu port xatutoon ni mu xatee tey jii bari na loo xam ne dugg na ci dëkk bi dana commencé wàññi ta ah. euh, bi mm-hmm. te noonu lay continuer tey jii chaque semaine bateau buy jógee Hollande dana indi des conteneurs léeg-léeg sax ñu am cargaison yoo xam ne uniquement oignon rek lay def ñëw comme bi nga xam ne nii mi ngi war a débarquer six mille tonnes. Ah, kon euh, mooy li ma doon wax ci facteurs yi rek. Sénégalais yi itam il faut que ñu jël xam ne itam tey ji consommation Sénégal ñu ngi koy wax ay trente mille tonnes mais jàpp ma ne loolu la tey statistiques yi ci boppam war nañ ko xoolaat.